di gërëm di bëggee ñëpp ñi nga xam ne aussi euh, ñi ngi tëdd foofu ci maison de détention yi maanaam prison yi yàlla na leen fa yàlla génnee nu mu gën a gaawee c'est parti pour beneen numéro gis-gis sur Sen TV di nuyu bu baax suñu ay invité papa ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. jërëjëf euh, nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa plateau bi yëpp ñu fi toog sama doom yëpp mhm. rawatina gune yu jigéen yi ku ci mel ne tey ki nga xam ne Sophie Gueye mhm. waaye tamit ki nga xam ne nga xam ne dafa dëkk diggante pire. Mhm. ah di sëtu dameel man defit mhm. nga xam ne dafay sëtu laman di ci fu njoogu nga xam ne day sëtub dameel ëmëri ngoone sobel dëkk mhm. pire diggante pire ak sañokoor nga xam ne sunu boroom dégg nga keroog seede si ko waa Njaasaan seede ci alxoraan ak bàyyam ni mu jaayantee jël ko nga xam ne fellitu garmi lay doon nu tàbbal ci ak wàlliwu ndax alxuraan gunu jugal ci dënnam yàlla na ko sunu boroom taxaw ci barke sëñ Tuubaa yéen ñëpp maa leen nuyu di nuyu nag sama fans yëpp di sama soppe yëpp ñëpp ñi nga xam ne waroon nan maa gis dimanche bii weesu te gisunu ma mhm. ñëpp maa leen di nuyu di leen jégalu di leen balu ak di leen ñaanal jàmm ci barke Sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim mhm. di nuyu sama sang ba Cheikh Mouhamadou Habib Mbacke ibnu Sëñ Abdoulahi borom dër bi rakki Serigne Cheikh Mbacke Diène le lion de Darou Rahman Serigne Abdou Kandji di nuyu Darou Rahman Ami saako mhm. di nuyu ñëpp fàttewuma kenn Baye Sall Kandji yàlla na ko sunu borom xare àjjana ci barke borom Touba di nuyu ñoom Tafa Kandji ñoom Kébé Kandji le grand promoteur fàttewuma kenn Abdou Kandji le grand entrepreneur de Serigne Cheikh Daaru Daba Kandji fàttewuma la maa ngi lay nuyu bu baax Fatou Mbacke jigal waa njigal leen maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di la ñaanal jàmm di ñaanal nag sama doomi bopp di ko won ne lu ma naqari woon jéggal naa la muy Modou mbay mhm. ndaateen boobu ndax ñoo bokk menn maam ndax dégg nga ne géwél ñetta ndaat ak géer ñetta ndaat koo ci way na maa lobe sàmba kulimati sengi ndaat maa ngi lay ñaanal bu baax yàlla taxawula la nga atteindre le plus haut palier man ak sa baay ñoo bokk benn baay ay ndaateen nanu bul fàtte loolu su ma sañoon nag di nga xam lu baree baree baree baree bari loo xam ne foo taxaw rek nu xam ne kii doomi mbër jàngil bëri lu mu yàgg-yàgg dees na la ñam ndax li ko dalee soo jàddee Kébémer romb garde afe ba keroo ngay egg ndaat ba keroo ngay egg njataar ba keroo ngay egg ba keroog ngay egg masarug baay bàlla la keroog ngay egg colom faal foofu yépp sa suufu maam la séengi yéen nii la defoon seen ndajama laajal sa baay am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi dëkk kër maajoor Fatima Goloñ doon na jokkoo ak ñoom di waxante ak ñoom di gisante ak ñoom ndaxte ñii nanu bokkal mooy waa ndaat yi ñu naan leen ndaateen deemarooneen yi moom mooy ñoom faat ki ne laam ñi nga xam ne ñoo bokk kër dogo faali joor kumba samba yaa jal ñooñu nag moom nanu ribool ndax man fàccaam làmbeen moo ma nàmpal ngeen tey bu baax ci man làmbeen yi te ku ne xam na ne latsukaa bi moom moo ko faloon moo tax soo duggee seen i kër da nga dégg ay ca kumba kay rek ay ndongo maali kumba ah faat ki ne laam ñun faat ki ne nan ko gën a xamee yenn nag a naan ki ne laam waaye faat ki ne moom la ko woy juróom di wooye baay Mbay Laam moom la koy woowee yaayam it moom la ko daan wooye Faatu Kinne Laam mhm. ñooñu ñoom nanu ribool ñoo riboo woon nga dégg naan dogo kër ci yaasin ñu riboo nga xam ne seen mbubb ñamee nan koo sol te du dunu laalu dóom ñoom ak waa ndaat yi muy ñoom bekkaay mbay ñi maa ngi leen di ñaanal baax leen gërëm Modou Mbay maa ngi lay ñaanal sunu borom yëkkati la ful la ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim bu baax a baax ah ak buur géwél waaw buur géwél maamam maxaseen moo àndoon ak njóogu Malick ma jambal jawaan jawaan ñuq ñuq faam ma jugoon faam ku ndaa ñooñu nag yaa ngi leen di fekk fii ndànd ak paleen dédd mooy sëti maxaseen yi waaw ña sant seen naan leen sëti maxaseen yi ñoom ñoo àndoon ak maamu laman décce fu njoogu Njóogu Malick ma jambal jawaan jawaan ñuq muy ñuq faam ndax ñun ay soose nanu faam nanu santoon soo demee ba léegi paleen dédd di nga fa fekk faam ja faam nga santoon bu njëkk kooku maa ngi leen nuyu di nag jaale waa kër gi yëpp yëpp yëpp ma leen di jaale ndax gune gi nga xam ne dafa nekkoon journaliste la tribune yaru téye woon boppam jàppoon njàmbaram ñu koy wax Mouhamed Bachir Ndiaye doonu journaliste nekkoon la tribune kooku day maa ngi ñaan sunu borom xaree ko àjjana gone gu tuuti moo génn àdduna yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare àjjana ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim mu ëlbatiku ñi nga xam ne ñoo fi des di ay gune nekk laa tudd ñëpp ñoom papa ñoom Lamine gune yi fi nekk ñoom jën ñoom ñëpp ñi fi nekk yal na yàlla teg loxo ci ñoom te yal na gëj ci groupe des médias yal na fi gëj ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadou su en ah, kay ndax dafa am ñoo xam ne ñii ay yóbbante na ñii yóbbante ma ci bugaan ñii yóbbante ma ci moom moomi géy ñii yóbbante ma fu nekk fu nekk ab yóbbante ma nga fa kii moo duggee héritage la mm. ndax nga xam ne xel kom dafa nekk ca kër ga waaye njurul dafa nekk kër ga lu mu jur daal di tuddee sëñ Saliou ak kër sëñ Touba muy waa kër sëñ Fallou di sëtub maam xaar gay mm-hmm. maamam moo njëkk a joxe sëñ Touba ab oto bu naan malwaar gay ñoom ñooy waa kër sëñ Gamba mhm. di nuyu nag ña fa nekk ñoom ñëpp tailleur ya mhm. ñoom Matar Jaxate ñoom ngenu ñoom ñëpp fàttewuñ kenn ñoom Maria Gunaye ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu Koddu Fall ak Sali Fall nee ci waa kër maam Tendeela Ngenaar ndaw nanu mhm. ñoom ñu nga ba Dubaay fàttewu ma Joor saar fàttewu ma tamit ki nga xam ne tamit moom kenn la muy Bamba moom laa sol mbubbam nii Bamba waaw Bamba mooy partenaire couture partenaire couture moo fi ñaw ñaw tuddee ko yaayam nu naan ko ma waaw ñu naan ko ummi Thiam maa ngi koy nuyu baax di ko gërëm di ko sant dégg nga di nuyu Baye ma Manel ko du ngoy le trésorier de l'État kooku kooku baayam mooy sama ndey muy sama nijaay sëriñ maa di jaamam léppam man la di nuyu ñoom Fat Sey bu trésor mhm. ñu koy wax madame Diallo fàttewuma ca kenn madame Diallo maa ngi lay nuyu baax di nuyu di nuyu Saasi Fall mhm. Saasi Fall ma nga ba soo demee États-Unis mhm. foofu la Saasi Fall nekk moom it sama nijaay moom moo ko jur nu koy wax tonton El Ngay te Guèye maa ngi nuyu Saasi Fall bu baax di nuyu tonton Manel bu baax maa Ibra Diagne Thiendella Guèye Jibi Guèye waaw Jibi Guèye moom kooku kenn la ci kër Sëñ Tuubaa rawatina rawatina Mbàkke Kajoor rawatina waa kër Cheikh Mamadou Lamine Baara di leen nuyu bu baax a baax waaw fàttewu ma ci kenn kenn kenn di nuyu nag sëñ Baara invité nga ko fii waaw ba ba sëñ Baara hmm, ba sëñ Baara day koo xam ne day satub Alaaji Baara day satub sëñ Baara bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sëñ Baara ñaan maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ko ñaanal bu baax a baax a baax sunu borom guddal aw fanam moom sëñ Baara ñaan moom yàlla na ko yàlla taxawu ci barke Sëñ Touba mais reste nag bu ci kenn am looy tiit ñii mhm. eggunu ma ci wewu dee tous billaahi barke borom Touba eggunu ma ci wewu dee te nañ leen ko xool fii nu ba xam ba xam ku ci amul ngemb doo ca génn fii nu dugg tey ku ci amul ngemb xanaa nga daw ral yi ragal ma hmm. ragal waaw ba ca bënu waa ma nekk États-Unis tey su amee fi teg na dugg <laughs> waaw d'accord d'accord dañoo na moon nag loolu mën nañ koo comprendre parce que la fois passée nekkoo fi woon te fii toj na donc kontaan nañu bu baax a baax ci ñëwaatam Père Mbaye Ngoné na ma <laughs> keroog loo defoon bii passé dangaa waafoon nag keroog kañ keroog bii passé ah. foo nekkoon fu ma nekkoon rek mm. ah bu coow di ma lay wax ma foo nekkoon waaw moom laa lay wax waaw foo nekkoon déglu leen ko bu baax nee na fu ma nekkoon mm-hmm. kajoor de daan nañu wax lu mën mën mën mën mën biiru waaye borom def ca loo yëgu dëgg la mën na naa fu ma demoon mhm. nga xam ne jinax daa war a bari ay rawtu waaw bari ay rawtu ay tëcc fël soo tëjee xale daal nee nañ foo nekkoon fan laay ne foo de wa bàyyiwuma buggaan ngay dali sag bi ma sagal jël ab oto yëkkati ko daal déedéet tontoon li ma la wax ba léegi de foo nekkoon ah buggaan yow gisoo ay yu ma nekkee fan yëpp yëpp yëpp yëpp. oto bi de balaa balaa la laal de balaa. papa dama la ko ñaanal. bu mhm. mu jox ma ab oto nag. jox la oto ngay absenté mos naa gis lii. absenté wu ma. loo def fa ma doon dem su ma tàgg woon bu gaar ne ko ma fay dem daf ma naan demal ndax jot na dem jot na. dem day toll foo xam ne day jot. waaw foo demoon xam nga xanaa déggoo ma. du ma la wax la ko wax. léegi dem naa daal dem na waaw ndax coow li bari woon na bari boo xam ne faaw ma dem. loo doon dem rek. daa gàddaay ñëwaat. ah daa gàddaay ñëwaat. ga ah gàddaay maa. non gàddaay dafa demoon dafa demoon defari bagage yi. yan bagage ah ah loo wax. waaw damaa defari woon bagage yi waaw damaa laali woon bagage yi. sangu la wala takk. dinaa sangu am naa sëriñub sangu ba sungu fag reen am naa sëriñub xaatim alxuraan waaw am naa sëriñub takk yooyu yëpp ba pare am na nu ay xam lu tax joxoo ma ci papa ah? seetaan nga ma de wala am na yoom andil nga ma ah? andil nga ma ci oto bi waaw am na yu ma la indil. waaw waaw waaw am na yu ma la indil. ayca eh, kooku mooy Père Mbaye Ngone Fall. waaw di nuyu Beya Beya Beya Thiaroye sur Mer Beya. ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. Prospère bonsoir. bonsoir Sofia. ça va. alhamdulilah. dafa bëri histoire mais c'est une personne à part entière moom ci boppam. Père Mbaye Ngone Fall. santaat yàlla comme ni ma koy waxee.